nee na bisu fukkeel ci tamxarit muy xaasura ak ba ko jiitu muy juróom-ñeenteel di taasuxa ñaar ñëpp lañu sopp ku leen woor waaye nag maase nañ ci ne bisu fukkeel ba nga woor ko moo gën woor bisu juróom-ñeenteel ba soo mënee boole woor yaar yëpp nag moo gën moo tax woor bisu fukkeel ba daal moom mu ëpp tuyaaba kon nag boo naree woor kenn ci ñoom ñaar dong def ko fukkeel ba boo mënee boole yaar yëpp nag mu gën bisu tamxarit te mooy bisu fukkeel ba ci tamxarit am na ay yëf yoo xam ne sopp nañ ku ko ca def te mu mat fukk ak ñaar saw mun koor mooy ba ci jëkk maanaam sopp nañu woor bisu fukkeel boobule ni nu ko weesoo woon léegi moom nag nee nañu moo ci sax ci sunna bu wér a wér yi ci des nag moom gaa yu baax yi ñoo koy tudd ci seeni téere te kat dañuy ay gaa yoo xam ne yàlla mi nga xam lu ko soob mu def ko ci ab jaamam da koo soob mu def ci ñoom xam-xami secret yoo xam ne yàlla rek xam na mu toll moo tax na ñu leen di roy ci def yu baax yooyu le salaatul ak julli julli gi moom boo jullee ñaar rakk rek baax na waaye nag man ngaa seet julli gi nga xam ne moom lañ aada woo julli foofa nga jullee noona silatul ak jokkuk bokk taamu nañu bis boobu nga toppatoo say mbokk nemmiku leen jokk sa digganteeg ñoom waxuslul ak cangaay sopp nañu bis boobu nga sangu ca nit ñuy sangoo janaaba sadaqatul ak saraxe sopp nañu bis boobu nga saraxe ci ngir yàlla loo man taqlimu dufrin ak lewi we sopp nañu bis boobu nga lewi say we kuxlun ak tusngalu sopp nañu bis boobu ku ci tusngalu iyaadatul maridi ak seeti aji tawat ku tawat nga seeti ko ngir yàlla ci bis boobu lu ñu taamu la zawru aalimin ak siyaari aji xam aji xam xam-xamul islaam di ko topp xam-xam ba ci jëfe taamu nañu bis boobu nga dem siyaare ko ca ngir yàlla wa masura sin ak raay bopp li yeti min ñel ab jirim saalimin bu di aji mucc ab jirim mooy gonek jullit goo xam ne baayam daa génn àdduna bu doon ku kàllafe moom su baayam génne àdduna itam nekkatul ab jirim ndax lam kàllafee tax bu fekkoon ne yaayam moo génn àdduna waaye baayam génnul àdduna it ba tey duñ ko tuddee jirim bis boobu nag nga raay ci boppub jirim lu ñu sopp la bokk na ci fukki yeeg ñaar jàng qul huwallahu ahad junni yoon nga def ko ci bis boobu bi ci des nag mooy yaatal ca sa njaboot maanaam yokk xéewalu njaboot ga te gën koo neexal taamu gi ñu taamu nag ku woor bëccëg bi tax na xéewal yi dañ koy def ca guddi ga nga xam ne bët seetee ca la ñuy woor wax ne ne yow mu xaasora boo ci sangoo noonu ñu ko digle mel ni ñu sangoo janaaba dana tax yàlla musal la ci jàngoro musal na ci tawat tey tusngalu ci bisu yow mu xaasora dana tax yàlla musal na ci gumba ba tey nee na bis boobu boo ci yaatalee sa njaboot yokk xiiwal nga gën koo neexal dana tax yàlla yokk sa wërsëg ci at moomee nee na koor nag baax na loolu waaye bul defe ne boo lekkul naanoo rek daal ngay woor déedéet am na secret bu nekk ci biir koor bu mat a jàpp bu baax nee na balaa na kuy woor ànd ak nit ñi mel ne mi ngi woor te fekk na xiif ba rek la cay am waaye du ci am lenn njëriñ kon lan mooy dëgg-dëgg koor nag kon dëgg-dëgg koor mooy nga sàmm sa cër yëpp daal bañ caa def dara loo xam ne ku ko def ñu wax ne njuumte la ñu wax ne gënut daal nga di ko moytu da ngeen téye seeni bët bu ngeen wooree bañ cee xool lu ngeen warta xool téye seeni tànk bañ caa dox lu ngeen ci warta dox téye seeni nopp bañ caa déglu lu ngeen ci warta déglu téye seen làmmeñ bañ caa wax lu ngeen ci warta wax seen xalaat sax na ngeen ko téye mu bañ a jëm ci lu amul njariñ bu ngeen sañ bu ñu sañoon saa yu nekk da ngay xalaat rek lu am njariñ te bañ a xalaat lu amul njariñ rawante nag lu ñaaw kon ni nga bàyyi lekk naan rek noonu ngay bàyyi yépp su boobaa nag bu daal nekk dëgg-dëggi koor nee na waxtu ngeen di xëdd ak waxtu ngeen dog na ngeen def rek lu yem lu yem ca bañ ëppal xëdd ga mbaa dog ga ba seen biir fees ndax bu biir yi feesee rek moom sekkare bañ soxla woon ca koor du ca am nee na day def ne boo xasee lekk ba sa biir fees naan ba sa biir fees faaw rek tëdd nelaw moo cay topp waaye xalaat ak jaamu yàlla moom daanaka doo ko man te nag lekk ba sa biir fees naan ba sa biir fees nga tëdd nelaw moom mbirum bahima rek la ku ko def daal na yem ak bahima te su boobaa koor gi wàcc na ko nii rek waaye secret ba ñu soxla woon ci koor mooy leer dugg xol bu rafet dugg xol bu teey bu woyof dugg day daal di xaw a jafe ci bu biir bi feesee ci lekk ak naan mu nelaw bu màndi boole ci daanaka yooyu du dugg moo tax am na ñoo xam ne bu ñu wooree ba toll ci waxtu ndogu mbaa waxtu xëdd dañuy lekk lekk mel ni aw nag ba mucc seen biir fees dell bu ko defee nag tëdd nelaw rek lañuy man waaye xalaat lu jëm ci seen boroom mbaa def genn jaamu yàlla te leen daal di jafe su ko defee ñu defee ne woor nañu nag fekk na dëgg la sax woor nañu ba koor ga wàcc na leen rek kenn du leen ci topp bàkkaar waaye nag secret ba ñu soxla woon ci koor moom duñ ko am yal nanu yàlla musal ci lépp luy xeetu waru waru mooy di yëngatu ci lu baax di ca séentu tuyaabaak ngërëm ndekete yoo am na lu làqu ca biir lu ko yàq ba xañ la njariñ la ak tuyaaba ja te yëgoo ko lool nag doomi aadama mucc ji jafe na yu bare bare bari yoo xam ne yu baax lañu ab jaam mën na ci yëngatu fekk na am na lu ko sikkal ca biir te moom yëgu ko yal nanu yàlla musal ci mboolem xeeti waru yooyule ak lépp luy lor ba faw faw nee na bisu tamxarit nag dafa am ay mbir yu bare bari yoo xam ne yàlla ci coobareem da ko caa xewale woon te bu ko sooboon mu xewale ko ci beneen bis bu bokkut ak boobu mbir yooyu nag boroom xam-xam yi nettali nañu ko moom it nag kon mu daal di koy nettali fii sunu maam aadama mook soxnaam xawaa sunu boroom da leen a dëkkaloon ca àjjana ne leen àjjana jàngoog lu ngeen soxla rek mën ngeen a waaxu sàkk ba mu des nag garab sàngam gee garab gee moom bu leen ko jege ñu wëlbatiku nag lekk ca garab googee kon loolu xëtt ndigal la ba loolaa sabab yàlla wàcce leen ci suuf ci bisub tam xarit nag la leen sun boroom jéggal lekk gañ lekk ca garab googee mu leen aaye woon nooxun alayhi salaam ba ko sunu boroom liggéeyloo gaal ga ba mu ko liggéeyee ba àggal sunu boroom dane ko lenn lu nekk tànn ci aw jiwu def ci biir gaal gi ñi nga xam ne itam ñoo wuy si sa woote bi gëm yàlla bariwuñu sax waaye dugal leen ñoom ñëpp sa waa kër itam képp koo ci xam ne ku gëm la dugal ko ci biir nooxun daldi def noonee yàlla daldi digal asamaan si mu wàcc am ndoxam digal suuf si mu génne am ndoxam yaari ndox ya tase lépp lépp lab ba mu des gaal googe nga xam ne mooy gaal ga nooxu nekk ak ñamu ca nekkalan bis ba gaal gay teer nag ci kaw doj wa bañu mën a wàcc bisub tam xarit la woon Musa alayhi salaam ba ko fen xaw nay dab ba ko aw nitam seeni ne ko ah daa ñu jot de mu ne déedéet suñu borom duma wàcc dana ma wax naay def suñu borom ne ko jël yat bi dóor ko ci géej gi ne ko mu ko dóor ci géej gi géej gi xar def fukki yoon ak ñaar fekk ñoom fukki famille ñaar lañu famille bu nekk am yoonu bopp mu aw ci kaw ndox mi ci géej gi mel ne ku jaar ci doj naka firxaana aksi nag fekk moom Moussa yàlla may na ko mu jàll mook ay nitam ba noppi nag firxaana bëgg a jàll moom it aw fa Moussa awoon ak i nitam yàlla bàyyi ba firxaana dugg nag mook ay nitam ñëpp rek géej gi defaat ndox na mu defee woon ndox ñoom ñëpp ñu lab xam ne kon bis boobu ci la yàlla musale Moussa ak ay nitam xalal ko géej ga ñu jàll waaye ca la labale firxaana dana ko wax léegi ci woyoo ci topp ba tey nee na xiisa alayhi salaam ci yow mu xaashura la juddu mooy li doon wax léegi ba Moussa jàllee ak nitam rek la firxaw na ñëw bëgg a jàll mook ay nitam far yàlla digal géej gi mu def na mu defoon ñoom ñëpp muy firxaw na ak gaayam ñu daal di bokk lab kon loolu ci yow mu xaashura la amoon mooy itam yoonusu alayhi salaam ba ko yàlla yebalee ci aw nitam da leen a woo ñu bañ mu daal di mer bàyyi leen dem dugg ci gaal te amu ca ndigal ba ñu nekkee ci biir gaal ga nag mel ne gaal gi daa nara suux ñu ne ñàkkul day ab jaam buy daw ab sangam bu ci nekk boo xam ne bu nu ko tegoy bant daanu ko xam bu ko defee nu génne ko ndax moo tax gaal gi nara suux naka ñu tegoo bant ya bant ba dal ca yunus alayhi salaam ñu daldi koy génne sànni ko ca ndox ma yàlla wax aw jën ne ko wann ko maanaam wannal yunus waaye nag defuma ko muy sag lekk maanaam bu mu rees ci sa biir ci bisub tam xarit nag la yàlla génne woon yoonu sa ca jën woowee ba tey ca bis boobee la ko yàlla jéggal loolee mu def te mooy jekki-jekki génn bàyyi aw nitam te amu ca ndigal yuusuf ay doomi baayam dañ ko añaane woon ndax na ko baayam bëgge woon dafa ëpp lool ñu fexe nag ba bàyyam boole ko ñoom ñu dem ca àll ba bañ demee nag ñu toroxal ko naran ko rey sax gannaaw ba ñu ne nañ ko sànni ca kàmb gee naka ñu ko sànni ci kàmb ga nag am ñu fa jaaran ci tukki ne nañu root ndox ci kàmb ga naka ñu sànni seen baag rek yuusufa daldi jàpp ca baag ba génn ci biti bis ba yuusufa génnee ci kàmb ga nag ba tey bisub tam xarit la woon ibrahim ba mu dammutee xërëm yi nga xam ne moom la ay nitam doon jaamu dañu ko mere daal di koy taalal aw sawara woo xam ne daa yanj-yanj ba nga xam ne picc yi naaw di ko tiim sax dañu cay daanu ñu jël ko sànni ko ca waaye suñu borom ne sawara wa da ngay sedd sedd bu yem ci ibrahim sawara wa daal di mel noona sedd sedd bu yem ca ibrahim nga xam ne ibrahim dara laalu ko ca sawara wa ci coobare yàlla lii nag ba tey ci bisub tam xarit la amee woon yonent yàlla idris sunu borom da koo yëkkati am na ñu ne da ko yëkkati yóbbu ko ci benn ci asamaan yi te ma nga cay dund ba tey am ba tey ñu wax leneen waaye sunu borom moo ne wa rafa'naahu makaanan aliyan mu ne nag ci bisub tamxarit la yàlla yëkkate woon idris moomule xiisa dañ koy wax ruuxullahi fekk na ruu yëpp sax ruu yi yàlla waaye nag moom ñàkkam ñàkk am baay nga xam yàlla awale ruuxam ci yaayam rek loolaa tax ñu koy wax ruuxullah moom nag yahuud yi dañ ko doon fexeel bëgg koo rey yàlla tëral fa ku mel ne xiisa ñu rey kooka defe ne xiisa la ñu rey ci bisub tam xarit nag la yàlla yëkkate woon xiisa mii daawuda ak yonante bu màgg la la mu defan nag ba di ko jooy jooy yu metti metti ba yàlla jégal ko ko dañ caa wuute ñenn ñi nee nañu daa jekk woon jekk rek ne jàkk xool asamaan te jiitalut yéene te nit ku baax rawante nag yonante sañu te jekki-jekki songu def lu dagan te àndut ak yéene nee nañu loola moo doon bakkaar ba muy loolu muy beneen bakkaar lu mu ci mën doon rek ci bisub tam xarit la ko yàlla jéggale woon yonent yim tudd yëpp rek la ñaanal yàlla dolli leen teraanga ak jàmm ba tey nee na ci bisub tam xarit la ñuy sàng kaaba gi koddaay loolu mën naa am muy koddaay loo xam ne dañ ko daan wodd kaaba gi ci bisub yow mu xaasora ci ay jamono waaye bu dee léegi daal moom nguurug waa màkka dañoo sàkk ñu amu xarala ñoo xam ne ñooy féetewoo wutal kaaba gi koddaay lu baax a baax te it dañ cay def alal ju bare bari ñu koy tudd ci rajo bi ñu koy dégg te it danañu faral di wax bis bañ koy solal koddaay loolu le kon bu dee koddaayal zahir daal mel na ne kon defatuñ ko ci bisub yow mu xaasora mën naa am nag muy leneen koddaayul baatin lu ko tax di wax